العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وكل من والاه إلى يوم أن نلقاه فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقل رب زدني علما نافعا مباركا مملني بلغ نيوغي تي سوره الشعراء موي سار بو خامتني دا فاي واخ تي وي كاتي ñu xamé leen ci musique sain borom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waayam ya ndax dafa am ñaar yu fi ne yoo xamante ne dañu nëbbatu tey lootu wante mooy ku xayr wa ku wa xayr mooy puissance lu baax kooku yàlla moo nekk ci gannaaw ànd ak ay malaykaam ànd ak ay yonenteem ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit yi mooy ñi yiw ñi mooy awliyaaw am piisaaf boo xamante ne mooy bu baaxul bi mal mal piisaaf bu baaxul ka ca nekk ci gannaaw mooy iblis mooy seytaane yi ak ña nga xamante ne ñoom ñooy li ñoo koy di réeral te mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy woykat yi moom mooy musique see nga xamante ne tey jii nii fu Iblis woote ci kàddoom ci seen kàddu lay jaare moo tax yonent bi ba mu déggee benn kiiw musique mu ne boobu mooy noddu Iblis yàlla dafa wax ne man de am na ay béréb ci kaw suuf am na ay waay am naa sama woote bérébam mooy jumaa yi noddam mooy bi ñu xam gaayaam yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy woote ci alquran ak yi ko jiitu mm-hmm. iblis ne man tam dama soxla mu ne alxamaara mm-hmm. xamaara tey ji mooy boîte mm-hmm. mooy fa ñuy naanee sàngara mu ne foofu mooy néegam mu ne ko sama nodd nag mu ne ko moom mooy musique moom mooy musique kon mu mel nii foo dégg musique rek xamal la seytaane moo fay woote te koo naw koo naw du wuyu ji woote boobu comme nag ñu baax ñi danañu woote mu am ñu leen dab bu àllaaxira jotee ñoom ñoo nekk ña ñuy upp mbooloo wala ña nga xam ñoom ñooy gën a fës tey jii ci àdduna am na ñoo xamante ne ñoo jël place boobu de moo tax yonent bi ci misaalam sallallahu alayhi wa ci misaalam mu ne noddukat yi te mooy barambaat yu neex yi dafa waxoon ci bilal fa innahu anda min ka sawtan mooy baat bu neex mu ne noddukat yi bu yombal xiyaamati jotee ñoom ñooy doon star yi kon mu mel ni woykat yi ame seen baat di koy neexal fu neexul yàlla di koy wooteel koo xamante ne mooy adversaire yàlla te mooy iblis bu yombal xiyaamati jotee duñ fa tekki dara fii ci àdduna nag iblis dina leen jox waaye bu àllaaxira jotee nag ñoom ñi nga ñoom ñoo doon nodd ñoom ñuy doon foofu stade yi kan mu juumi mm-hmm. noonu la ko interview mën nañu ko ay biddiw mm-hmm. kon mel ni saar bi dafa ñëw di leeral point bu am solo boobu mm-hmm. ndax bul fàtte ne bi yonente bi juddoo ca màkk dafa feesoon dell ak caaxaan ak pox ak musique yooyu moo fa nekkoon yonente bi di woote ñoom ñuy woote waaye ñoom saa yi su nekk bu ñu wootee rek danañu fees ne dell nga dem yàlla ci biir semaine bi mm-hmm. moom heure bu yàlla woote rek moom iblis dafay ñëw toppandoor yàlla mm-hmm. parce que la aqoodan na lahum sirataka al mustaqima la wax loolu la wax mm-hmm. yàlla woote guddi pour ñu jaamu ko ci moom mu woote guddi pour foofu am na ñuy wuy ji yàlla am koy dem liñ ci yàlla di wax wa maa kaana aksaru mu'minina moo ci ne li ci gën a bëri ci moom lañ jëm te iblis yàlla woote na guddi moom mu woote guddi yàlla woote ci juma moom mu woote ci baar yi woote ci buwaat yi woote ci place ñuy fooye borom bi tabaraka wa taala ci biir semaine bi mu jël ajjuma tànn ko di ci feeñu jaamu moom mu jël samedi mu jël samedi nga xamante ne saa su ajjuma jotee julli ci ña ca jëm a góorgóorlu boo moytu bu samedi jotee ñu yàq ko yëpp ndax jëf ju bon dafay yàq jëf ju baax moo tax mu ne man jaar bin xasana li gën a bëri nag mooy xalaatoo amalan saalihan wa axara sayyan da ngay gis koo xam ne dafay def bii wëlbatiku nga gis ko fee doo xam man façon nit la sax kon mel ni daal saar bi loolu moo ko tax a jóg mooy woykat yi ci jamono mooy musique sen mu indi la nag Seydina Moussa pour woon la ne du musicien kon yow mu doo musicien que amoon na projet boo amoon te yaa ngi ci te musicien du mel noonu ku mel naka Seydina Ibrahim mu tudd ko wone ne dafa am lu mu taxaw na jóg mooy defar pas-pas yi yow Mouhamad loolu moo tax a jóg kon inna fii zaalika la aaya wone na ne kon yow mi yonente nga tey nag mu ñëw ci kaw mu nooxi mooy gaa yi nooxin bi juróom-ñaari yonente mu tudd ci saar bi pour def leen ñuy ay repère ci yonente bi yonente mën a xam ne kon man de yonente la ak ñun tamit ñu mën a xam ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente la bokkul ak waykat yi mu ne kazabatu weddina xaw ci lugatul arabia la mu waroon a wax mooy kazaba parce que kaw mu daf koy muzakkar waaye bu fekkee ne mbooloo la bu waa jaaza dagan na nga jigéenal ko kon kazabat dagan na ci kaw parce que mbooloo la ay jamaatu kawmu nuuhin kon kazabat weddi na kawmu nuuhin gaayu nuuhin ya te doonoon yonente al mursalina weddi nañu yonente ya lu tax yàlla liggéey fi baatu mursalina te benn nuuhin la fa yónni bul fàtte nag ne Seydina Nuuhi moom mooy yonente bi yàlla njëkk yoon yónni ci kaw ñépp yónni woon ko ca Makka Makka parce que dëkk Makka mu nekkoon dëkk Seydina Nuuhi boobu moom kenn moo ñëwoon yàlla ne mursaliina daf la bëgg a won ne ku weddi benn lépp lu ko niruwaale rek weddi nga ko waaw ku weddi benn weddiwaale nga lépp lu ko niroo ndax tey jii nii ku weddi Seydina Muhammad kon weddi nga mboolem yonente moo tax boo demee ci katolik yi mu ne yuriduna an yufariqu bayna allahi wa rasuli wa yaqulu numinu bi baadi wa nakuru bi baadi fa muy jeexalee mu ne ulaayka humul kaafiruuna xaqan yàlla du nangu ñëw gëm Isa Muhammad la wetti yàlla ne dama lay considéré ne yow gëmoo Isa parce que Isa lam la wax mooy gëmal Muhammad yaati bi ba'da ismu Ahmad kon boo weddee Muhammad ko weddi ñun sax benn silsila la tey jii nii ko yente du waxee mu ne mboolem ambiya yi ay doomu ndey lañu moo ko wax al ambiya ixwa moo tax mu ne Isa sama ak moom dafa mel ni gis nga ko seexaloo parce que kenn jaarul sama diggante ni mu ko waxee caabi sawri kon mboolem yonente yi ñoo bokk ixwatu ay mbokk yu taxaw boo saagaa kenn yóbbaale nga ñëw ñëpp boo saagaa benn rek ngeen jotee nga saaga ko saaga nga waale ay magam ak ay rakkam kon ku weddi benn yonente weddi waale nga mboolem yonente te itam ki nga xamante ne gémul bu dee kii wax na ko gému ko keneen bu ñëwaatee wax daf koy weddi parce que même taxawaay bi la am ba léegi lan moo hin wax ndax bo mboolem ambiya yi bañ jeex muslimina lañ ko wax rek muslimina ana awalul muslimina aslamtu wajhi lillah kon mboolem yonente yi benn diina lañ inna diina indallahi al islam benn diina moo am ca yàlla adama moom la indi woon sayidina Nuuhi moom la indi woon Idrissa ba ko jiitu loolu la indi woon ba ci sayidina Insa wa yahdiyakum sunana alladina min qablikum la yàlla wax yàlla ne boo gisee ma di leen di indil téere bi dem leen di soulignel génneel leen na yonente yi meloon kon Seydina moo indiwul lu bees inventé lu bees li mu indi yëpp mooy li yonente yi indi woon ba benn catholique wax na ko mu ne dëgg dëgg jullit yi nag ñoo nekk ci dëgg ca la Insa nekkoon jullit yi ñoo ci nekk mu ne parce que dafay jàng si seen kitaabu mooy seen injiil bi nga xamante ne wéru mu ne def ci jàng ne Insa keroog ba muy mujjee dajeeg taalibe mi war a dem daw pour ñu war ko mën a dàkkee ji comme ñoom gëm nañ ne dañ ko dàkkee ba jàpp ko mu ne keroog dafa sujud na nga ko waxee mooy dafa jël bopp bi teg ko ci kaw suuf si di wax naan yaa allah di tudd yàlla daal mu ne geste boobu ñu wax du koy gis kenn di koy def ci catholique yi ko dul jullit ñi mu dal di daanu ne xam nga niñ ko defee woon élèves yi laaj ko naka la ko defee woon mu dal di sujud mu ne leen ndax gis ngeen catholique buy defati nii ñu ne ko déedéet mu ne leen kan ngeen di gis muy def li ñu ne jullit yi mu ne kon est-ce que jullit yi nekkuñu ci li Isa nekkoon ce que jullit yi nekkuñ ci li Isa nekkoon parce que geste boobu noonu ñun duñ koy defati jullit yi la ñuy gis ñu di koy def te loolu la Isa bu jee def ñu gis ko ak mbooloo kon pour wan la ne tey jii nii ñii wax naan dañ gëm Isa te gëmuñ Seydina Muhammad dañ weddiwaale Isa ñii wax naan dañ gëm Muusa te gëmuñu Seydina Isa gëmuñu Seydina Muhammad dañu weddiwaale Muusa wata mm-hmm. benn yahut waxoon ko mm-hmm. ba ko benn waay waxee ne ko di koy laaj ci diine yi mm-hmm. mu ne bu dee ci diine yi tey jii bi ci wér mu ne mooy lislaam journaliste laaj ko ndax bu dee lislaam mooy wér kon yéen lu tax dugg leen ci lislaam mu yëngal bopp bi dal di rek mu ne ko xanaa lan la mu ne ko Muusa ñëw ñu bañ ba tëdd ci suuf te Muusa mooy suñu mbokk lu ñu am ci teraanga moo ñu ko defal mm. lu ñu am ci àdduna moo ñu ko defal mm. mu ñëw ñu weddi ko mm. fenal ko sosal ko jéemal ko lu nekk ba mu gëdd ñu fa dem bu dee ko mooy suñu mbokk ñu bañ ci loxoom kon beneen waaye bu jógee ca àll ba naka lay ñu ñu di koy toog ñëwaat bi ca kon loolu wane na ne ñoom gëmuñu Moussa moo tax yàlla def fii ci nuux mu ne al mursalina parce que la la Muusa la Nuhin indi ba ñu weddi ko bu Muusa ñëwoon même lay indi kon dañ koy weddi moo tax tey jii nii nitu yàlla mu nañ koy waxee toujours nitu yàlla ci awliyaaw yi boo jàkkaarloog moom weddi ko bañ ko boo gisoon Muhammad weddi ko bañ ko xam nga benn parce que copier la ci moom li yenente bi indi li alquran indi loolu lay dund tegu ca nga gis ko bañ ko boo gisoon Seydina Muhammad kon moo tax yàlla jël ni al mursal ne nuuhin gaa yamee dañuy weddi mboolem yonente hmm. te pourtant dajewoon ak mboolem yonente benn yonente la dajeel hmm. waaye bu ñu dajewoon ak beneen yonente même message bi la leen di indil bu boobaa dañ koy weddi moo tax yàlla ne kazabat qawmu nuuhin al mursalina hmm. weddi nañu la ko dalee ca aadama ba ci Seydina Muhammad ñoom ñëpp dañu weddi iz qaala lahu ba nga xamante ne wax na leen axuuxum seen mbokk kon ñoo bokkoon benn deret ca Adam nuuxun tuddoon nuux ne leen ala tattaquun te ngeen ragal yàlla ñun day wax ci jamono te ñu ragal yàlla pox bu rëy bi ñuy def ci kaw suuf te ñu ragal yàlla ñu bàyyi yéen mii bokk ñun lu xew bu dee bànneex la ñu taal musique rek dañuy topp rek mu ne nag ala tattaxuna ndax na ngeen leen wottandeku yàlla bàyyi bunt yi nga xamante ne foofu ngeen di góobee meram inni man nuux lakum jëm ci seen kaw rasulun ku yàlla yónni la aminu te duma leen nax ku wóor la duma leen nax duma leen utiliser duma leen jëriñoo mu wutee boykat woykat du def loolu def lay jéem a jëriñu kon yeneen du woykat ñoom ñaar bokkuñu te itam al amaana te mooy ngor te mu bokk ci min sifaatil ambiya bokkul ci ñoom ñoom yéemuñu amuñu amaana boobu amuñu ko parce que adduna lañu soxla moo tax mu ne leen inni man rasulul yonente yàlla la muy benn waaye ci biir nubuwa bi nag ci biir risaala bi nag aminu moo tax Seydina Muhammad di ko doon tuddee as-sadiq al amin mooy ko wóor la soxlawul lenn ci kenn nag ni ko yàlla waxee rek noonu la koy jottale fattaqullaa mu takraar mu ne na ngeen ragal yàlla wa at yoonente na ngeen ma topp parce que maa xam yoon bi en tant que yonent yàlla nee na bu ma yónnee yonente rek pour ñu topp ko ma arsalnaa min rasul illaa li yutaa dama bëgg ngeen topp ko kon moo tax ma ne leen na ngeen bàyyi ci lii ngeen di nekk fattaqullaha bàyyi leen lii ngeen nekk te mooy caaxaan bi ak poox bi waxaat yoon ñu ci topp kon est-ce que yonente dafa doon fecc yonente dafa doon musique yonente dafa doon dugg ci yonente du ko doon def taatu la wax waxaat yoon kon ñun en tant que jullit tey jii dañu war a topp yonente yooyu yonente bi fan la doon dugg kaana fil masjid masuñu dégg ne yonente bi dugg na ci bois kaana yaqra'ul qur'an dafa doon jàng al qur'an masuñu dégg ne yonente bi mu nga yëkkati baatam di fi di woy masuñu ko dégg wa maa allamnaahu shi'ra maa warul sax ci moom rafetul kon ñun tamit warul taxaw jën micro naan dangay ngay da ngay woy lay wax warul parce que loo koy waxee yàlla ak loo koy layale moo tax mu ne fa ak yoone na ngeen ma topp en tànk que yonent ni may waxee ngeen di waxee noonu ni may defee ngeen di defee noonu waaye mu ca même boo wàccee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jamono waruñ topp ku dul yonent nañ fekk tey jii nii woykat bu génnee colin wala mu génnee benn watu wala mu am nu mu defee bopp bi tënt ko ñëpp toppandoor ko ñëpp toppandoor bu solee fafa mu dàll sax dàll yoon noonu foofu lay jaar si colinam moom lañ nit ñi di roy toujours waxinam moom lañ nit ñi di roy toujours te naa Nuh ne wa taqullaaha na ngeen ragal yàlla waa at yonent te topp ma kon ñun yonent bi lañ war a topp waruñ di roy ci woykat yi surtout boo demee ci xale yu jigéen xale yu jigéen yi saay su fecckat wala woykat bu jigéen génnee colin seen colin yu baaxul yooyu ñu roy ci bu ñu génnee solin bu cher ñu roy ca bu ñu génnee bu gàtt ñu roy ca xotti ko ci digg ba ba ci xaw ñu roy ca na muy gën a faase ñu roy ko ca na muy dëgg ay xam ak ay xefam ñu roy ko ca ñu ne ay star lañ lu ñu def rek ñu roy leen ci te pourtant ñun warul roy ci ñoom déedéet ki ñu war a roy fa taqullaha wa atiuni nañ topp kan nañ topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu yàlla wax ne walakum fi rasulillah uswa hasana nee na dee leen di roy ci yonente yi dee leen di roy ci yonente bi kon ñay roy ci ñeneen ñoo xamante ne du ñu yonente te mooy woykat yi te moo ci gën a bëri mu ne ragal leen yàlla fa takku laa ragal leen ko wa at yonente na ngeen ma topp wa ma asaluhu nee laajuma leen nag moom Seydina Nuhin alayhi ci lii ma leen di woo min ajir laajuma leen payoor mu wuteeg ñam bu wuteeg woykat bu ñu woyaa dañuy woyaan rek lan lañ ci soxla am am amu àdduna kon yow Muhammad comme laajuloo comme noohin na nga xamante ne laajul peyoo kon yow yonente parce que woykat dafay laaj woykat dafay laaj moo tax benn woykat ba woyoon ko wala mu ne kuy wóor doo làmmee bu noppee rafle moo ko doon woy benn woykatu Sénégal de di tudd woykat yi mu jamonteel yëpp ne diw sàngam làmmiñ lay wodd diw sàngam làmmiñ lay wodd woykat yi bes bu ñu noppee lu ñaamati daa ñaamati bi parce que seen baat rek la ñu yàlla yonente yi nag ñoom du ñu melul noonu moo tax moom yow Muhammad yonente na parce que li la jiitu ci yonente nii lañ meloon laa asalukum alayhi ajra laajuma leen payoon in ajriya sama peewa illaa lu dul ala rabbil alamin xanaa yàlla fay mooy tiyaabu laa ci wut yonente tiyaabu kan moo gis ci ñoom kuy def gratuit da ngay gis ñoo xamante ne dañuy wax naan dañuy woote benn benn concert ci ñoom nee na parce que dañ bugg a dajale dafay génn yépp mu am benn société bañ koy jox te duy nekk dëgg ñoom ñëwal ba tegu lekkaat mu mel ni dañ koy mbuboo pour wane ne lii xew na kon dañuy def benn concert woote ca gars yi ñëw ku ñëw après lañ cay joxe noonu dinañ ko boole joxe ko ci société sàngam mm-hmm. ñuy faju cancer ñooy ne ñay def lee ñay def lee buy pare ñu jël ko mm-hmm. buñ ca paree lañ fay woy ñu def ko kaset ak ay vidéo di koy jaay par la mm-hmm. ci àdduna kon amuñu ñoom li ñuy def loo xamante ni duñ ci jëlee dara du ci bénéfice woykat moo mel noonu moom heure bu nekkee rek dafay fexe am lu mu jëriñoo lépp lu mu mën ci samp nag def ci ut lu mu am amul dara lu muy def lu dul intérêt rek lay dal fépp foo xam ne intérêt nekkatu ko doo ko fa gis mu wute yonente yonente moom yàlla rek lay def lépp lu muy def gratuit la yàlla rek moo tax ma di koy def in ajri illa ala rabbil alamin kon fattaqullaha muy ñetteelu yoon na ngeen ragal yàlla te bàyyi seen caaxaan bi wa at ni te mel ni man na ma topp na ma topp kon mu mel nii woykat yaa ak ñee toppandoor woykat yaa ñoom lay waxal woykat yi nañu bàyyi nañu mel toppandoor yonente yi ndax yonente bi nee gis naa imra al qaysi sax mu ne mooy jiite woykat yi ca biir jahannam gis naa ko moo téye dara daraabu kon moo tax nañu bàyyi la def roy ci yenente waaye ña leen di topp itam bu ñu topp ñooñu ndax duñu référence ñu référence bu baax boo exemplaire du woykati déedéet moo tax ñiy woy pour nga gis ci ko am jëkkër bu juste ak a jafe ak a jafe bu dee xale bu jigéen du am jëkkër bu juste te foo dem nag dañuy mel ni ñoo xamante ne dañu suufe waaw du ñu kawe dañuy joblu seen bopp lu bon ak ci àdduna bi yëpp nag laa ñu seetlu laa ñu seetlu waaw moo tax du ñuy nangoo am jëkkër parce que bu ñu amee jëkkër dañu am problème waaw ñi ci am jëkkër duñ ci yàgg wala du ñu am jëkkër parce que bés bu ñu amee jëkkër am problème la ko waral mooy na jëkkër en tant que góor dafay fiir bu dee sa jabar yéen ñii doo ko te bu boobaa loolu moom dafay gis ne loolu daf koy koñe wala de moo tax ñoom matuñu référence yàlla nee na fattaqullaha na ngeen ragal yàlla Seydina Nuh ne na ngeen ragal yàlla wa ati one te topp ma man bu leen topp ñooñu xaalu ñu tontu ko ne ko anu'minu laka ndax dinañ la gëm wa tabaaka te ñu gis ñu topp leen al arzaluna ñu teg lu tur mm-hmm. dallu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba bokk na ci li Kaysar laajoon Abu Sufyaan ñañ ñoo ko topp mu ne ko al arzal mu ne gis noonu jii nii ñan la ñuy gën a suufeel ci réew mi taalibe taalibe taalibe ñoom la ñuy gën a suufe waaw ñooñu ay taalibe lañ lu ñu bugg a suufeel daal tuddee ko taalibe parce que dañuy gis ne ñoom gis nga ko duñ dara ci réew te pourtant ñoom ñoo téye réew parce que yonente bi ne innama tunsaruuna bi du'afaa'ikum yonente bi nee na ñooñu néew doole ci seen biir ngeen di leen di xeeb ñoom la yàlla di leen di ruuse bu ñuy def seen image yu ñaaw ci réew mi talibé la ñuy génne nga gis leen ñuy yelwaan noonu yéen lañuy def yemuñ ci léegi nag ñu commencé ñu ngi yàq seen der te ñoom ku yàq seen der kenn du leen défendre talibé ci théâtre yi ci lu nekk bi fan yee passé gis nga ko ñu ngi def benn vidéo boo xamante ne dégg naa ay borom xam-xam ne dañ ko war a kaas parce que dañ génne benn taale boo xamante ne dafay jaay dorog ñu ne sëriñam moo ko koy jaayloo allahu alam na mën na nekk parce que réew mi moom liñ ci xam noonu la am na ci dañu ñëw dugg ci mbir te bokkuñ ci waaye même su fekkee ne kooku mu ngi koy def taalibe boobu noonu ak sëriñ daara boobu ñu tax nga yàpp euh, taalibe yi parce que Cheikh Ahmadou Bamba taalibe la woon sëriñ la woon Sidi Alaaji Malik taalibe la mhm. ñu baax ñu ngi fi yaakaar ci réew mi yëpp ay taalibe la ñoom wala ba tegu doon ay sëriñ kon doo téye ca loolu ñoo ñu def bu dee dëgg la sax am na ñoo xam du dëgg parce que lii lañ ko def jaaru théâtre lañ ko def du moom mu ne mu noonu xàkk la noonu pour woon la rek lu bon lu nekk ñoom lañ koy teg tabaakal arsalu parce que ñoom ñooy taalif te doo dem fenn fekk leen kaas waaye ñoom bes boo leen laalee bu boobaa nag àdduna yëngatu parce que wax ma waaye kaset yi buñ la waxee lañ lay wax ba woy woy ba tasaaroo bu boobaa doo tekkee dara ci réew moo tax président yi du ñuy nangu ñoom ñu contrôler ñoom te du ñu mën a contrôler léegoo li ci gën a bëri léegoo léeg nag mu am waaye daal li wër li wër bu wër mooy. ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy yonente leen di topp dañuy doon ñu kawe ay ñoo xamante ne ñu baax lañ ñu wàcce seen bopp ñoom ñoo leen di topp loolu màndarga la ne ñoom ñooñu ñoom ñoo nekk ci dëgg parce que bu dee safaan bala ña leen di topp du ñu doon ñu suufee ay ministre la ñuy doon wala yu noonu moo tax ñoom ñu wax loolu Seydina Nuh ne ko anu'minu ah, laka ndax dinañ la gëm wa tabaakal arsalu comme niñ ko waxee Seydina Muhammad ne ko lu tax ñun ñu di lay gëm te ñi tekkiwul dara ci Makka ñoo la topp ay ñoom Bilaal ñoom Ammar ibnu Yaasir kon ñoom waruñ laa topp da ci soratul ahkaaf mu ne bu fekkoon ne lii lu baax la maa sabaqunaa ilayhi law kaana xayra lii bu fekkoon ne lu baax la kon bu boobaa ñiy tekkiwuñu dara du ñu ci jiitu parce que ñu ñu xam waaye yàlla di dalal xelu yonente bi nii ah kañ nuuhi noonu la demee woon ña ko toppoon dañ ne ñu suufe nu mu leen di def xaala mu ne wa maa elmi man lan laa xam bi ma kaanu yaamal la ñuy def seen diggante ak seen borom moom man lan laa ci xam pour wala ne yonente xamul xayib lu dul ko ci yàlla xamal nag in xisaabu xam nga ki leen war a topp ba xam la ñuy def ndax doon nañ dara wala tekkiwuñu dara illa ala rabbi kooku yàlla la tegu law tasharuna te xamu leen ci lu bëri moo tax yenente bi ki ñu tuddee Abdullah ibnu Ummi Maktum mooy abasa wa tawalla ba yenente bi toogee ca Makka bi yéeféeri ñëw ne ko boo buggee ñu topp la dañu bëgg bul di toog ak ñii bu fekkee ne dangay wax si ak ñoom kon ñëwal nga toog ak ñun jox ñu benn jotaay nga xam ne dañ kilifa rek ñoo fa nekk buñ fa paree nag nga door a dem ci ñëpp de boobu nga waaye ñun mënuñu toog ci suñu jotaay ak yow ñii tekkiwuñu dara di ñëw toog suñu biir. yonente bi ngir xiir ba mu xiir pour ñu doom ay jullit mu nangu ko ñëw toog ak ñoom di waxtaan. bu dee kuy xoole bu xoolee xar kanam bi nga xam ne kon bugguma bugul ma ñëw waaye kii nag seen max la mu dox ba yegg ci yonente bi am lu mu koy laaj ci diineem yonente bi mel ni gisu ko du mooyu ko kooku comme dafa seen max xamul xar kanamu yonente bi ban fest la koy wax te yonente bi bugul fii mu toog fi parce que li ko wax mooy ñoom Abu Jahl ñu ngi toog kilifay Makka ñu ngi toog mu laajaat ko ba mu ñett yoon yonent bi du mooy yàlla si jibril moo tax fu ko yonent bi gisatoon rek dafay jóg teeru ko ne ko marhaban bi lazi atabani rabbi bihi ne tax yàlla yent ma yàlla ñoo wàcc ay tàng abasa wa tawalla dañoo ne yonent bu nekkuloon yonent sax ay du ko feeñal abasa wa tawalla ku muy waxam yonent an jaahul aama du moom mu ne wa maa yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fa tanfa'u zikra amma man istaghna parce que am na alal fa anta lahu tasadda tax na bu nga bëgg ko jox cër wa maa alayka allaa yazakka te mënoo ko defar te man lu baax laa soxla comme mu mel yàlla yeddi na fa sax yonente bi ba mu buggee suufeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi moo tax Seydina Nuuhin itam mu jànge wala mu defee ko naka ko yàlla waxe mooy ne ñii nga xamante ne da ngeen leen di xeeb maa elmi man lan laa xam bi maa kaanu ya'maluun la ñuy liggéey la ñuy liggéey nag lu baax ñuy liggéey mooy lu baax loolu noonu seen digganteeg seen borom man lu ma ci doon comme li xew ci réew mi rek boo demee taalibe ñoom ñooy jàng alquran lu mbon mbon moom taaliba jóg guddi dana jóg suba dana jóg ngoon parce que il faut mu dem jàng ban béréb ngay fekk suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñuy jàng alxuraan di tudd yàlla ci daara yi nga koy fekk te boo demee dañ leen di jël def leen comparé leen comme ñii du daara boolewul leen ci tus ci réew mi ba ma ana nee na nekkuma bi taari del mu'mina en tant que jullit nag am na ñoo xamante ne seen kër yi taalibe bu fa dugg see ba moytu dañ koy dàq yaa ngi saltel fii bu ñu rombee ak seen oto du ñu jël sa dugal ci seen biir oto parce que dañ lay seexlu waaye bu fekkoon ne keneen la ni ki musique see da yàkkamte ñëw gaare pour yóbbaale akada da ngay bugg a jege jege wanteeg moom da ngay bugg a xaritoo ak moom. bu doon boroom alal la dangay bëgg a jëflanteeg moom waaye comme en tant que jullit la nag nga ne kon bu dem man man ma dem te pourtant nag jullit mooy ka am gëdd ca yàlla te léegoo léeg nit ki nga xool ko ci jëmmam nga xeeb ko te ca yàlla moo tax yàlla di yéen waa gox boobu yëpp ci jamono yenente bi dafa am ku ñëw ci moom ne ko man de dama am mbokk waaye mbokk bi daal dafay toog rek amul dara amul tus nag maa téye jabaram maay téye léppam yenente bi ma bëggoon nag nga wax ak moom heure bu nekk mu ngi fii ci jumaa ji mu ne dafay jàng dama bëgg nga wax moom moom tam mu xaw a góorgóorlu tuuti yenente bi xool ko ne ko diw sanga mu ne ko waaw mu ne ko kon sa mbokk la mu ne ko waaw mu ne ko gis nga lépp loo am ci teraanga ci barkeem nga ko yàlla bu dul woon moom yàlla du la may dara ci àll kon xoolal kooku mbokka ba xeeb na ko ci biir kër te pourtant yàlla lii na wala yonente bi nee na kooku moo tax yàlla di jokkee moo tax xeet jullit ndax barke mën na la yóbbal moo tax Seydina Nuh ne ma ana nekkuma di taaribil mu'minina noonu la ko waxaate yonente bi wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu mu ne bu leen dàq amuloo droit pour dàq leen moo tax yenente bi gannaaw ba ko yàlla yëddee ca loolu keroog la ko gëj a def bu toogee ñoom ñëpp ay toog te loolu dafa continuer benn noonu la yenente bi dafiy jóge ñu ngi nettali ci Omar ibnul Xattaab koo xamante ne benn kilifa la woon ci kilifa yi arab yi ba mu tuubee ñu ñëw Makka di tawaaf ba muy tawaaf dajeeg benn waay koo xamante ne ku suufe la kooku catu yaram eh, yéréem bi mooy li mu làmbaayoo watatu ci suuf kooku déggaat ko xam nga bu ko déggaatee dafay xëcc ci baat bi kooku gëstu rek mbéj ko parce que mu ne moom kilifa la mu mbéj kooku ba mu ko mbéjee kooku ñëw ci seen na Omar bu ngay joxe mu ne ko xanaa lan la mu ne ko diw sànga moo mbéj te kooku kilifa la Seydina Omar wax ba mu ñëw mu ne ko yaa ko mbéj mu ne ko xanaa gis la mu dëkkaat sama yére bi Seydina Omar na ko dafay feyeeku ci kaaba ji te comme yaa ko mbéj daal te nangoon yaa taxaw mu mbéj la man kii mbéj ma mu ne ko waaw mu ne ko ki ma doon mu ne ko lislaam amul loolu ñëpp a yem ci yàlla comme daal yaa ko mbéj dafay feyeeku mbéj kooku ne ko kon may ma tuuti may dem ci kër ga ca ñëw fekk naa man na ko defal ñu waaye moom dina fee fi ko mbéjee fii ci kanam ñëpp fii la fii la lay béj rek yéeg fasal mën na dawee dem am murtad doon catholique noonu la génnee ci diine ci kon pour wol la ne yonente bi sallallahu alayhi wa dina bi mu indi amul ku suufe amul ku kawe ñëpp ñoo yem loolu mboolem yonente yi nag foofu la du ñuy xool nit ci valeur am ci la mu sol wala askanam wala la mu am fa ñuy nattee nit mooy ci taqwa ba la fadla li arabin ala ajamin illa bi taqwa taqwa bi moo ci am solo moo tax mu ne ko wa ma ana bi taaridil muminin man awma droit ndax ko jullit ku gëm yàlla parce que man li ma ñëwal dama ñëw pour ñëpp pour jaamu yàlla kii jaam la ci yàlla kon man lii moomu ma ko in man li ma doon wan nuuhin ana illa nadiru nekkuma lu dul kuy waare mu biinu te lu ma wax nag dafay leer dara du ci nëbbal amul naxante amul naxal parce que léegoo-léeg sa mbokk nga am na naxanteek moom mu ne man lii ma indi amul naxante Seydina Muhammad keroog ba yàlla wax tabbat yadaa abii lahabin daf koo nëbb nëbb la ko ca yàlla wax loolu la loolu dem wax amul amul lu mu ciy xaalu bi ne ko la illam tante bu fekkee ne nag génn loo yaa noobu yow noo ci lii ngay wax nii la takku nan na danga bokk minal marjumiina danañ la jam ay xeer bi nga dee yow noo en tant yonente wax nañ ko mu xam bi door nañ ko ay daal keroog ba mu demee ca Taif ay xeer lañ ko jam dañ ko jam ay xeer bi tànkam yëpp néew yaram yëpp di nacc ba ki ñu tuddee Usaamatu wala Zeydu ibnu Usaama Zeydu Zeydu ibnu Alxaarisa Zeydu ibnu Alxaarisa bi àndoon ak moom dafa dem ba xam sax ngir ay xeer xeer yi ñu ko jam parce que dafa doon protéger yonente kon bu dee yonente boobu jam nañ ko mooy noobu kon yow Muhammad itam mën nañ laa jam firiwul ne doo yonente dafa bëgg a dalal xelu yonente bi wan ko ne ko yaa ci yoon bi parce que lii muy xamante ne moo lay daal dalon na ay yonent kon yow yonent nga bok bu ci am benn ñaari xel la in lam tantay ñu ne ko bayu ya no bu yow nuub li nga ñuy wax di ayibal suñu yalla yi di wax naan ne benen diina mo fi nek bi ñu nek ni wëru la taxu nan na nga bok ci minal marjumina tak la bi nga dege ñu jam la bi nga de kala mo ne leen rabbi man de demay wax ak yalla parce que yeen wax ak yeen mante ne kuy koy waxal na am xel mu ne inna qawmi sama gaay kaddabu yow yàlla sama gaay yi weddi nañ ma comme ni yonente bi waxee màkka mbokkam mi weddi ko faftax maa ngi lay ñaan nag nga jàppale ma ubbil ma bay nii sama diggante wa bay naw ak seen diggante wala nga ne faftax na nga attee bay nii sama diggante wa bay naw ak seen diggante fatxan atte boo xamante ne kenn ku ci nekk dana xam ci li mu nekk ndax mooy dëgg wala moom mooy fen wa nag ji waaye maa lay ñaan nag nga fawe ma wa man ma yaa ak képp ku ma àndal minal mu'minina ci jullit bi kon nga gis Seydina Ibrahima dafa ñaanoon Seydina Moussa dafa ñaanoon Seydina Nuuhin itam dafa ñaan kon mu mel ni yonente yi bañ jeex itam seen gannaay mooy lan mooy ñaan Seydina Muhammad ñaan moom tamit sallallahu alayhi wa ni noo yi ñaane noonu la ñaane ba mu ñaanee itam yàlla wuyu ko ca pour won la ne yonente lu mu wax yàlla yàlla daf koy nangu waaw moo tax bu yàlla daf koy bu fekkee ne safaan la yàlla nangu ko bu dee yiw la yàlla nangu ko yàlla ne na wuyu ko ci ñaan ba fa anjee naa ma ñëw sowe ko wa man maahu ak ñamu àndaloo fil fulkil mashhuni ci gaal boobu nga xamante ne gaal ba mu defoon ba mu fees dell pour woon la ne Seydina Nuhin en tant que yonente dafa ñëwoon pour régler benn kaawu société yonente bu ñëwee dafay jëriñ ñëpp Seydina Nuhin ba mu ñëwee la ko gaayam yi weddi weddi weddi waaye bu dul woon moom adduna tas noonu la yonente di mel bokkul ak woykat boo xamante ne dëkk boo amul woykat lu mu wàññi dëkk ba wàññiwu ko nag kër bu amul woykat lu mu leen wàññi wàññiwu leen daal parce que amul dara lu muy yokk ci ñoom du àdduna du àllaaxira am gaar moom li mu doon rek mooy pour dalal la wala pour pour pour bégal la pour kontaan nii rek ñoom loolu la ñoom pour loolu la pour bégal seen xol yi loolu lan la mën a yokkee réew bu wuute nag ak yonente bu ñëwee Seydina Nuuhin bu fa nekkul woon est-ce que ñu ñi keroo juddute keroog askanu Adama dafay ñeex Seydina Muhammad bu fi nekkul woon alquran bi dinañ ci jot tey jii ni àdduna bi mel nii changer complètement est-ce que loolu dina bi maanaam amul woykat bu ñëw changer àdduna amul woykat boo xam ne dafa ñëwee itam kaw social rek moo ko yitteel mooy nit ñi nañu am jàmm nit ñi nañu am teraanga nit ñi nañu am yiw déedéet ñoom loolu du intéressé leen moo tax mu ne fa ànjee naa ma dal di koy musal ñamu àndaloon te ak a ñoo tuuti woon ñaata la ñoom juróom-ñaar moom la woon ak ñetti doomu ak seen soxna soxnaam sa moom far ñoom rek juróom-ñaari nit rek lañu fil fulkil mashhur ci gaal boobu nga xamante ne moom la tabaxoon ñu def ko ba fees la mu defoon ba fees nag wax na ko min kulli zawjayni isnayn nga xamante ne def ko tabaxoon ñetti étape rab yi fàtte ak rab yi nga xamante ne ñoom ñooy lekk ñax bi ak nit ñi noonu la ko defaree gaal ba nekk fa naka lañ fa nekkoon ci biir ak luñ doon lekk lolu borom bi tabaraka wa taala wax na ko nuuhin ba ko nuuhin waxe ne ko waaw naka la len di dajale ci bir ak naka lay def sen ndox lek ak na mu ne ndax ñaata ñaata wer ñaata wer nga am ci sa biru yaay mu ne ko juróom-ñeenti wer juróom-ñeenti wer ku fa tay won ngay dundu mu ko yow mu ko kon baye ko ah bu ki ak xari nak nu ñi def mu ne ko nag kan moo jël noonoo boobu def ko seen diggante ba kii bu gisee kii rek daw kii bu gisee kii dàqee ko mu ne ko xanaa yow mu ne man ma ko def man naa koo di jël jëlaalo moo tax ba ñu duggee ci biir gaal ba amul lekk amul naan yàlla moo defoon lekk ci baaxam comme ni nit di nekkee ci biiru yaay duñ ko toggal ay duñ ko toggal rek